man maa ngi tudd dañ may ooyoo quoi mais seulement seulement comme li ngeen ma laaj noonu si problème mu bi toujours tali bi dafay xat moom entre poste Fann cité parce que ñu ñëw jaare par la voie par par Wakaam par Wakaam la ñuy jaare quoi. mais à part ça entre aéroport Yoff moom dafay xat toujours dafay parce que oto yu bëri yi léegi dootuñu jaar par par la VDN côté boobu la ñuy jaaree quoi waaw. embouteillage bi moom góobu ne mën nañu am solution bu ko bu ko dindi quoi actuellement je pense pas. waaw man maa ngi tudd Mandione dëkk Déni Biram Ndaw quoi nekk safoor Ndiaga Ndiaye fii si seen waaw embouteillage bi ni koy jogante même maintenant tey moom tane na tey moom embouteillage moom tey métti wax peut-être dafa fekk oto yi dem xom nu mu tudd sax kasu fee Touba dafa fekk oto yi dem Touba quoi ak fi mu toll nii moom vite fait moom pour dem Kër Massar ñëw moom vite fait la moom vite fait la moom instant moom embouteillage moom amul. non dañoo woon dañuy barrer autoroute à péage mais mujj ñu ko barrer quoi. Euh, depuis onze heures et demi la ñu waxoon dañuy baare autoroute à bi mais baare wuñu ko quoi ah mandat am bees bi ah man moom man safoor la xam naa sama yeneen moromu safoor quoi ma amul lu ma siy wax moom fa dëgg fa yàlla. yéen avril bi la. 4 avril waaw indépendance bi ñu ngi koy waajal waaw. maa ngi tudd embouteillage bi moom ñu ngi sant yàlla parce que itam euh, liggéey bi rek moo ko waral te amul benn jafe-jafe boo xamante ni mën nañu wax ni moom moo baari suñu liggéey amu ci. yaa ngi dégg dëkk bi xat na mais teew itam ñu ngi dem liggéey suñu kenn ku ne ñu am euh, wërsëgam euh, te ñu ngi dem comme ni ñu daan demee rek donc circulation bi heure xëy ak heure wàcc rek bu xasee passé passé mais amul ñu benn jafe-jafe bu garaaw daal. teer bi teer bi amul ñu benn am impact. parce que teer bi bu dee wàllu Tëngéej ñetti tali moo fa am te tali bu nekk amoon am na sortie bu na déviation boo xam ne tali bi président loolu la ndax amul APS euh, bi doon nag loolu information la boo xamante ni ñoo ko joxe mais kenn tëju ko woon. allez amuñu benn problème ñu ah non amul benn problème man fa laa jógee nii te maa ngi nii di yebaat Kër Massar bu soobee